salaamaaleykum salaamaaleykum mbokku internetu ci TV Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp di ziar yëpp comme niñ koy defee saa su ne si seen euh, émission sama ndaanaan tey ñu am benn ndaanaan boo xam ne kenn dootu ko présenté si biim réew nekk euh, Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall nuyu nañ la. Euh, maa ngi lay nuyu bu baax élage Hadj di nuyu aussi abu bi nga àndal di nuyu seen internet yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kontaan ci. Euh, jotaay bi nga xamante ni tey jii fas nañ ko yéene seq ak yéen. tey euh, soo ñu doon wax kan mooy Pape Diouré lan nga ñuy wax. loolu nag moo gën a jafe wax yow yaay kan moom bokk na ci laaj yi nga xamante ni moom moo gën a jafe <clears throat> nit ñi rek ñoom ñooy mën a xam ki nga doon ñoom ñooy mën a apprécier ki nga doon euh, par rapport ak nature relation bi nga xamante ni moom nga am ak moom mais su ma doon tënk daal Pape Djibril Fall. Euh, sénégalais la mm, juddoo Sénégal màggee Sénégal jànge Sénégal di liggéey Sénégal donc euh, dëkk fële nag ci Thiadiaye à 30 kilomètres de Mbour euh, voilà donc loolu daal xam naa ne mooy li ma mën a wax. si tey est-ce que mën nga ñu retracer tuuti rek sa parcours. parcours bi nag amul solo lool ndax euh, xëy na euh, bi ñu juddoog léegi yàggagul euh, moo tax parcours bi mënagul am solo trop caajaay laa jànge foofu la duggee école bi ma demee ba war a def bi ma amee BFM e comme caajaay amul woon lycée donc ñu indi ma dakaar loolu tamit bokk na ci li tax ñuy ñaxtu jamono bu nekk ne décentralisation dafa war a mat sëkk ndax bu décentralisation matee lu bari looyu wut si ci capital yi doo ko wut si da ngay toog fa nga dëkk nga amee ko foofu donc euh, BFM am BFM Thiadiaye amut lycée tax ñu jëlee ma foofu indi ma Dakar ma jàng fi bi ma amee suma baccalauréat dem université ginnaaw bi ci laa def euh, li nga xamante ni moom mooy euh, Euh, concours école centre d'études des sciences et techniques de l'information nekk journaliste euh, waaw boobu ba tey tamit euh, maa ngi ci métier boobu di jéem di nap na bi di liifantu di góorgóorlu voilà pour voilà trouver motion tey si si métier boobu la ñuy la ñuy àgg lu tuuti tey yaa ngi yaa ngi TFM tey nan nga def ba intégré TFM nekkoon ci sama yoon di dox Euh, ci di pratiquer suma métier di ko def euh, ci ni nga jàpp ni nga xamante ni jàpp naa ne moo dëppoo ak niñ ma ko jàngale ak ni nga xamante ni tamit jàpp naa ne mooy tax ma amal njëriñ suma réew euh, donc voilà en un moment donné sunu borom dogal ne war naa liggéey TFM ni nga xamante ni noonu la tàmbalee woon jaar ci kër gu ñuy tuddee agence de presse sénégalaise jaar ci kër gu tuddu rajo Sénégal international jaar ci kër gu tudd télévision nationale jóge fa dem fi nga xamante ni moom mooy 2STV yi donc loolu du point de pratique journalistique am na yeneen liggéey yoo xamante ni def naa ko ci yeneen métier ci yeneen barab mais du point de pratique journalistique euh, loolu mooy jaar-jaar yi nga xamante ni def naa ko euh, waaye mosuma ko woon jàppee surtout agence de presse sénégalaise RSI télévision nationale mosuma ko jàppee ay maison de presse ci man dama ko jàppee woon ay école ndax damaa jàppoon ne génn naa école c'est vrai mais bari na loo xamante ni waroon naa ko jàngaat bon ba fii ma nekk nii ci jàng boobu laa nekk ba tey jii may wax ak yow sa bu may jëlee sama di dem di dem fële ci télé ba damay jàpp ne damay jàngiwaat ndax àdduna moom bés boo xëyee rek bindu bu bees la donc chaque jour surtout métier bi ñu nekk chaque jour on remet le métier à l'ouvrage parce qu'on n'est jamais euh, sur euh, d'avance ni définitivement donc euh, jamono bu nekk rek euh, da ngay gën a làbbali gën a dolli euh, bëri looy dabu nag waaw parce que dafa nekk métier boo xam ni muy évoluer dafa gaaw trop donc il y a besoin de de s'adapter ci situation yi nga xamante ni ñoom ñoo lay confronté wu chaque jour contexte bi ak voilà donc daal taxawaay waaye taxawaay bi ci ëpp solo ci man mooy engagement ndax dama jàpp ne Euh, nga nekk journaliste Sénégal nga nekk hmm, ingénieur nga nekk euh, architecte nga nekk euh, magistrat ak nga nekk cordonnier nga nekk tailleur nga nekk loo maçon loo mën di nekk rek jàppal ne liggéey bi ngay liggéey da nga koy liggéey ci réew moo xamante ni dafa am retard bu bari bu ñu am di ko defee ci continent boo xamante ni dañu victime ci esclavage ak colonisation loolu damay bëgg ñu koy intégrer ci suñu taxawaay ñu xam ne dafa am lu ñu war a régler waaw loolu ñu war a régler aussi dafa am ñoo xamante ni ñoom la ñu ko war a defal mooy les générations à donc du pour ñun waaye pour ñi nga xamante ni ñoo ñuy wuutu la donc le combat que nous menons aujourd'hui nga nekk journaliste nga nekk loo mën nekk li ci ëpp solo mooy loolu donc man loolu laa jiital ci suma métier ndax li nga nekk bu mu tax nga fàtte li nga doon waaw Euh, li nga xamante ni moom nga doon ak li nga xamante ni moom nga nekk donc li nga doon mooy un sénégalais un africain li nga xamante ni moom nga nekk nii nag ce que tu es devenu c'est un journaliste c'est un maçon c'est un caméraman c'est un animateur mais dafa am benn souffle boo xamante ni benn énergie positive boo xamante ni ci foofu nga ko war a jëlee mooy engagement boobu nga am pour xamee ne euh, da nga amee une mission de correction mais surtout da nga war a contribuer à faire bouger les lignes man loolu moom ëppal solo. Euh, ñu ñu gis ne aussi da nga nekk nit koo xam ne wax dëgg yàlla. Euh, sénégalais ñëpp lay bëggee wax dëgg yàlla nga nekk euh, une référence je je peux dire tu vois loolu quest que ça te fait. ñaax la d'abord ñaax encouragement la mais sant sunu borom la hmm, sant yàlla et que voilà donc euh, sant yàlla daal laa ciy def ak. Hmm, jàpp ne aussi euh, ñooñu di la jàppee référence ñoom ñooy say référence parce que finalement ci ñoom ngay référé wu pour di jooyanti sa taxawaay jamono bu nekk donc finalement ñoom ñooy référence yi en fait waaw ñoom tamit ñooy repères yi ndax ñoom ñooy tax euh, voilà ngay góorgóorlu jamono bu nekk ñoom ñooy tax euh, jamono bu nekk ngay yokk sa prudence ñoom ñooy tax jamono bu nekk nga bëgg a dolleeku xam-xam ñoom ñooy tax tamit jamono bu nekk ngay ñaan suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni moom moo mën a wattu moom moo mën a sàmm moom moo mën a suturaal mu wattuñu sàmm ñu suturaal ñu teel ñu boppam waaw parce que jamono bu nekk rek da ngay yëg sa sa sa impuissance sa doyadi waaye jamono boobu nag ci ngay ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dimbali la bu baax parce que li sëriñ Saliou Mbacke doon wax rek radiyallahu anhu dafay wax na jàmbaar amul kuñ dimbali moo am waaw donc jàmbaar amul kuñ dimbali moo am waaw. Euh, si sa si sa kàddu dañuy gis nit koo xam ne nit ko dal nit ko am éducation. lan moo waral loolu. waaw damay sant bu baax a baax sunu borom ci mu jox ma ay wéyjur yu baax d'abord ma màggee aussi ci environnement boo xamante ni góor gi ma yar dafa amoon une présence très effective effective taxawaay bu ama am solo moom lañ ma tuddee yàlla tamit dimbali ma boole ma ay nit yu baax yoo xamante ni kenn ku ci nekk rek bi ma dajeeg yow ci suma dund xalaat naa ne yow jàpp naa ne da nga bëgg. ma baax damaa bëgg danga bëgg ma jub dama dangaa bëgg ma tegu ci yoon donc baax ak jub du loo xamante ni nit ki dafay jóg dal ci mais dox la ab dox la donc nit ki dafay inscrire ci dynamique boobu donc tawféex boobu suñu borom defal na ma ko et voilà ma ci sant bu baax suñu borom ci voilà environnement boobu nga xamante ni daal nekkoon naa ci te ñu am ci taxawaay bu ama am solo boo xamante ni xëy na bu dul woon loolu euh, kon làmbaay ñaaw. est-ce que mën nga ñu nettali tuuti rek ci sa enfance. enfance comme enfance yëpp ah xale bu terrible <laughs> xale bu bëri woon dugg-dugg. xale bu bëri woon dugg-dugg. mais c'est toujours yar toujours c'est une c'est un rapport de force parce que xale bi moom lu ko neex rek la xam mais mag bi moo war a xam li gën ci moom. waaw xam nga xale tey par exemple boo koy jox comprimer comprimé nivaquinine comme ñun moom lañ doon ñu jox boo ko koy jox day foog ne da ko bañ. c'est la guerre pour mu jël ko mais moo gën ci moom mais xamul ne moo gën ci moom bu ñu koy piqûre c'est la guerre pour moom waruñu ko piqûre donc rapport de force la mais il faut que parce que xale bu la jooyloowul boo ko bañee mu jooy bu nekkee xale su màggee boo muy moytul mu jooyloo la comprendre ga donc euh, la privation pour man elle importante ci te tey jii ñiy coow yëpp naan xale danga ko war a defal lu mu bëgg danga ko war a defal yenn débat yooyu fii réclame mais ba ci tubaab yi tey da ngay gis seen doom day juddu ñu def ci moom privation yu extraordinaire pour bëgg mu am nu kii dañ koy tëral sax programme boo xamante nii ñoom ñooy décider ci voilà boo jëlee moyen en Occident mais boo demee par exemple dans les pays asiatiques ngay gis ne ils ont définitivement réglé ces questions ñoom ñooy am ci seen njaboot. da ngay am sa programme ba pare gouvernement bi am beneen programme ci sa njaboot donc ñu bàyyi nit ñi rek ñuy dox nii mel ni ay mala voilà ku lu neex waay def fu mu neex mu kii maa ngi dégg benn jour Dominique Strauss-Kahn mu ne euh, famille juive mu ne amul reer rek tëddi nee na bu ngeen reeree dañuy dajale njaboot gi avant ngeen tëddi bu ngeen defee seen i prière ba pare dafa am exercice boo xam ne dañ koy def loo xale bi exercice bi ping pong la tudd mooy lan. souvent dañuy wax xale bi mu défendre benn thèse ba pare ñu ne ko défendre la antithèse donc ñoo ngi namm xel bi ci réflexion ci argumentaire mais ñoo ngi koy namm aussi ci résistance ak résilience maanaam nan lay mën a taxawee ba du consommer bêtement li nga xamante ni tu me passes l'expression moo jóge ci biti wala li nga xamante ni dañ ko koy kii donc dafay am benn taxawaay boo xamante ni dina ko permettre mu mën a euh, dëgër dëgëraay boo xamante dina mën a dem challenge àdduna bi pour tout en gardant son identité loolu moo tax tey man euh, voilà Sénégal fu ma fi man di nekk àdduna bi fu ma fi man di nekk caajaay moo ma ko gënal te loolu it ci góor gi ma laa ko jëlee mooy caajaay moo ma gënal su ma sañoon tamit tey caajaay mooy gën a mucc ayib su ma sañoon caajaay kenn du fa jóge di faju ji foofu ngay fajoo su ma jógoon kenn du fa su ma sañoon kenn du fa génn di jàngi parce que ma conviction est que soo bëggul sa gox mënoo bëgg sa réew soo bu ko bëggul soo ko soo ci soo ci taxawul taxawaay bi nga ci war a taxaw mais pour nga dem taxaw feneen dafay compliqué loolu la tuddee samba àllar hmm? donc loolu tamit li tax tey jii pour nga bëgg Afrique foog nga bëgg Sénégal ba pare bu dee sénégalais nga les Rwandais pour ñu bëgg Afrique foog ñu bëgg Rwanda ba pare Kagame bala muy jëm dara Afrique dafa fexe ba Rwanda jag ba noppi. waaye tamit mënoo bàyyi ay problème fii Sénégal par exemple ne dem ne da ngay lijjanti ci parce que dafa am problème mu démocratie te sa problème mu démocratie ah wala nga donc. vice versa donc il y a des questions yoo xamante ni existentielles laa leen tuddee yoo xam nit ki daf ko war a régler donc j'ai eu une enfance boo xamante ni maa ngi sant yàlla euh, su ma sañoon sama doom am enfance bu mel noonu parce que yàlla boole woon na ma ak nit yoo xamante ni xamoon naa ne seen préoccupation principale mooy que voilà mooy que ne euh, duma wàcc yoon daal waaw te tey ji kenn ci ñoom muy suma maam boobu génn àdduna waaye tey la fi gën a nekk nag tey laa gën a sentir présence am waaw tey moom lañ ma tuddee hmm, damay dégg sax ñuy wax ay conflit de génération wala soit may dégg ñuy wax euh, alternance générationnelle mais góor googu tax na ma gëwuma loolu waaw sunu conflit yi ñu doon am yépp conflit yu positif la woon waaw parce que conflit bi yépp dina dem ba yey la wan ne la na yey naa la xam loolu dafa am solo mooy du daw conflit bi moom te loolu dafay rejoindre li Habermas di wax ne espace public mu ne espace de conflit la à la différence de la jungle ici le conflit est institutionnalisé te dafa waroon déboucher sur consensus waaw donc dafay déboucher sur le consensus donc lan moo tax institution war a am doole donc moom góor gi mais c'était l'institution moo doon le patriarcat moo int moo ko incarné woon moo doon le patriarche waaw donc concession la ñu nekkoon mu am un patriarcat mais mu nekk une figure emblématique charismatique koo xamante ni du dugg ci ay par parparloo koo xamante ni su la waxee dina la wóor ne lim la wax yëpp sa njëriñ la xam dafa am solo mooy y a amu ci benn intérêt basement matériel mais intérêt yëpp c'est que moom mooy njaboot gi baax mooy que mu assumer sa responsabilité et loolu ça me paraît extrêmement important et ça manque souvent de plus en plus mooy ñoo xamante ni aussi dañuy dugg ci logique yoo xamante ni ay par par loola wala wàlli bañee wala soit dóor kii gënale kii loolu baaxul ci kilifa donc kilifa day mat kilifa donc euh, man ci moom laa jëlee xeex injustice ku bañoon injustice la waaw ku bañoon injustice la ku bëggoon égalité la waaw surtout égalité des chances loolu moo tax gis naa ñoo xamante ni dafa dem jëli seen doom ñoo ñu ne seen doom du dugg école mu force leen dugal seen doom école waaye boobu mandat lañ doon wax waaye boobu mandat bu njëkk bi ñëwee da daw nañ ne góor gi yaay nga ñu de am nga ci ñun dëgg de te ba mu leen di jëli di leen dugal école dañu bañoon te pourtant moom jànguloon école mais ku mu ko waxul doo ko gëm waaw mu nekkoon président des notables nekk président de l'association des parents d'élèves gëm école waaw gëm école ba pare am une haute du don de soi waaw li ma lay jox exemple rek mooy daan na jóg dem ci hôpital su demee day xool kan moo fi ñëw tey te amu fi mbokk mu yónnee kër ga ne nañ tibb bool foofu à l'heure du manger yóbbul kooku gis naa ba tàyyi tamit ñu jël si ko n'importe quelle heure yóbbu ko pour mu dem taxawu ay nit yoo xamante ni amuñu woon lu ñu lu ñu fajoo gis naa tamit wax dëgg fa yàlla euh, ñu fëgg ko heure bu nekk laaj ko depense bi nekk ci kër gi mu joxe ko jàpp ci yàlla loolu yombul de gis naa ko tamit këram nekk le lieu par excellence de la médiation loolu tamit gis naa ko le lieu par excellence de la médiation nga xamante ni jamono bu nekk gis naa euh, këram boobu nekk foo xamante ni foofu lañ daan pacifier les conflits bu nit yi jàppantee mu dem defar ko jàppale leen dimbali leen ba ñu delluwaat ci situation yi normale yi donc loolu yëpp aussi euh, franchement Euh, je pense que loolu moo tax euh, Pierre Bourdieu di wax ne environnement sociologique dafa am solo parce que mu ne foofu la xale bi di engranger l'essentiel des biens culturels yi nga xamante ni moo koy dimbali pour mu am identité ba du traverser ce qu'on appelle une crise identitaire